asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuho Sëriñ Moodu Mbàkke ci ndigalu Sëriñ Moodu Bagal Juuf di président Miftaahul Munaawasul Touba Gate ak ñi mu ko àndal kilifa yaa ngi teew Sëriñ Babacar Mbay jawriñu Daaru Xudóos mu ngi teew ak taalibeem sëriñ Babacar Sall jawriñu sëriñ Sam Mbakke Ndulo mu ngi teew ak taalibeem sëriñ Ali Tin jawriñu mu Mouhamadou Lamine Diop Dagana mu ngi teew ak taalibeem te imaamu jumaa ji ka ca tege di sëriñ Moodu Cawa Juuf Baay Faal muy man mii di wax yéen di seen jaam jaamu Cheikh Rafaal ñoom ñoo sëñ Tuubaa may seen Cheikh Rafaal ka tege <clears throat> di waa Ibaadu Rahman yi nga xamante ne ñoo bokk réew mi bokk gox bi bokk jaamu yàlla bokk rabbil Mustafa sallallahu alayhi wa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 li nga xam ne keroog bi ñu jokkoo ak moom ba léegi waxtu wu guddi ak bëccëg mi ngi yor oto di dox di yéeg di wàcc di ñu jokkale ak mbooloo mi mu waxoon ñu nag ci dëkk bii nañu waa Bambey séeréer ñoo sasoo añ bi waaye gàtt day nee nañ mënuñu faa ñàkk ñëw waaye li ñu dugg dëkk bi Serigne Modou nee na bu ma xamoon na loolu su a romb fekkee ne a jóg su fekkee ne diine rek la tax a jóg su fekkee ne jokk bokk lislaam la tax a jóg foofu moom danga fa taxaw. ndax kat Serigne Touba bu masaa di dox bu ma se wasee waree fasu naaru borom yi du romb taalub jàngu du romb romb doomi soxna daana fa yendu daana fanaan ndax li ko yëkkati mooy message su l'islam bi jàll te mooy li ñu yónni woon magu mag ñi di Moustapha sallallahu alayhi wa sallam Serigne Mountakha nii nekk dafa am message bu koy dox loo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 jàkkaarloog seytaane jàkkaarloog tubaab bi fa yéene tàbbal nit ñi àjjana leneen taxumaa jóg mu xam ne nag balaa mën a tàbbal nit ñi àjjana faw loo am fu leen jaarale ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci hadiisul xudsi na bala ngeen a mën a xam seen seen borom bala ngeen a mën a xam dara da ngeen aarifoon yi xam la an bu doon yi bala ngeen a mën a jaamu yàlla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 boo xoolee ci yonent yàlla Ibrahim ba muy ñaan ca makkatal mukarram ñaanam nga bi ko yàlla yi nangu Ibrahima fekkiwu ko sëtam yu bëri fekkiwuñ ko waaye kenn naata bi na yaay am boo yàlla nangu la ko Sëriñ Tuubaa nag dafa wax ne man du ma ñaan yàlla lun ma mayut ba ndax nee na sama xam yàlla ak sama tawhid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 yàllaa ma tegtal yonent bi ni mu ko tegtale ñépp ma wuti yonent bi di ko liggéeyal ba la bi jàpp ci sama loxo yóbbu ma ci yàlla mosuma génn diggante yàlla ak yonent bi moo tax mu wax ne fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa'u intama ila al jilani aw intama li ahmad al tijani aw li siwahuma min al axtaar yoonu murid ku ci génn yaa ci génn sa bopp waaye sëñ Tuubaa nee ku jëm ci yàlla rek laay woo moo xam nag wérdu woo mën a yor kenn nattab li wut ne am na ñum joxoon wérdu xaadir moom lañ yor ba niñ génne àdduna moom la ñuy wérdu am na ñum joxoon wérdu moom lañ yor ba niñ génne àdduna moom la ñuy wérdu boo demee ca mawaahibu naafi bismillahi rahmaani rahim allahumma ya akramu salli ala sayidina muhammadin al fatiha lima uxliqa wal xaatimi lima sabaqa nasir al haq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 ci lu dul ngay dugg xalwa wala ngay sonn isa katabtu ihtasar shalbaaqi wa sabbahat malaaiku tibaaqi saa yu ma jëlee sama xalima di bindu malaayika yi dañuy sabbal aras di loolu mooy liggéeyu Serigne Touba mu wax wala tuhaadu man raaytum faaxu yuxriju laa ilaha illa allah sëñ tubaa nee na digal naa leen yéen samay taalibe bu leen def ab noonu kenn koo xam ne làmmiñam wi mi ngi génne baatum laa ilaha illa allah loolu moo may waa gaat bin ñëwee ñu nañu waa ibaadu rahmaan yaa ngi nii tiijaan yaa ngi nii xaadir yaa ngi nii laayeen yaa ngi nii loolu liggéeyu sëñ tubaa bu rafet moo nu ko may ndax sëñ tubaa dafa wax ne alxilmu laa bi kasrati riwaaya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 ki mu àndaloon xamoo ci moom dara ba tubaab bi naagoo ne sëñ tubaab faatu na ñu bind lettre Sénégal yónnee ko am njaboot ne leen sëriñ bi génn naa àdduna booba tubaab bi naagoo na ci sëriñ bi nee na juróomi at yi ma def maa yomba damaa defe woon ne yaari guddi la yaari guddi nee na li tax ma defe ne yaari guddi la bi may soog ñëw maa yomba dama am xasida gu ma bi ma fi amee juróomi at nag may xoolaat sama bagage gis xasida googu bi ma ko datee ak boobu muy juróomi at ma ne man dakate yàgg naa fi xaw ma woon ne def naa fi lii foofu la ab allemand ab allemand boo xam ne ab docteur la jamono jooju Gabon godd yi fi ne kun matt da ngay nelaw ba faatu looloo tax sëriñ su bari ñu rey leen fa docteuru boobu lañ jëli woon ngir mu nekk médecin ci Gabon di faj loolu bi muy ñëw bay traversé nag Île Mayomba ci la seen lu weex mu nekkate njaaga mu yor ab longur yi xool ko muy nit di wàcc ci montagne bi di jëm si ci ndox mi mu foto ko bi mu dikkee mooy leen ndax maa yomb ba nit dem na fa ñu ne ko cinq ans yi nit taxawu fa Ahmadou Bamba lañ fa mujj yóbbu cinq ans yi keneen demaatu fa mu ne kan mooy Ahmadou Bamba ñu génneel ko portele wan leen ko mu ne leen gis naa ko photo bii maa ko photo léegi kenn sëñ Tuubaa moo tax li sëñ Tuubaa daj maasa li sëñ Touba daj jërëjëf ma daaneel ndax fi ñu jëm dafa des lii li tax ñu yaatal ko nii mooy li ñu fi fekk lii duy caaxaan jumaa ji ku ko xool ñu ne ñaqu baykat mokk na fa loolu la sëñ Tuubaa santaane jaamu yàlla ak liggéey Gabon Sëriñ Tuubaa nee na bi may ñibbisi nattu bi ma tubaab yi mujj teg dama am benn xew xale sama xarit la woon ñu di ko wax Moustapha Thior taalibe Moustarchidine la woon navigateur la woon da daan ne ci bato yi dem gaba ko ñëw daf maa mas a wax ne ma fàllu ma ne ko mbàkke mu ne maanaam île wiir wiir wiir wiir léegi seey na amatul île ba ndox mi lekk na ko waaye ba mu seeyagut boo fa masaa jaar ñu ne la fii yóbbu nañ fi ab sénégalais nee na doo doo téye say ronkoñ da ngay jooy ba ni nga koy rombe ndax lan lëndëmaayu île ba ak ak soriwaay ga ak ak ñaawaay ba Serigne Touba ñibbi si tubaab yi jël ko nee na natt biñ mujj a teg ak man fukki officier ak ñaar lañ jël fukki officier ak ñaar ak benn capitaine kenn na nañuy jox la balu fetal ne la bal bi yëmut ci mën a rey waaye dañ koo tookee kenn ku ne dàkkal cër sàngam ci Ahmadou Bamba nga fetal ko biñ koy def it yàllaa leen weer dañ ne dañ koy def 4 ñu ne de nañ ko bàyyi ba 5 heures ñu soog koo def ñu fab sëñ Touba takk ko ci ak garab. marale ko ak garab ga yeew ko bam ne ngodd ñu woo fukki officier yooyu ak ñaar ak benn capitaine sëriñ Tuubaa ne lii bu ma ko nettalee murid yi dañ koy gëpp dañ koy weddi naa ko bind wahaba lil wahaabu fi sulaasa maa yuxjilul asarata wa ñu ñun dun neel sëñ Tuubaa lu def rek dañuy wax yàlla miy maye may na ma ci bisub talaata bi lu gàcceel fukki nit ak ñett yooyu ndax l'islam bam sosoo ba fi ne gis nañ ku xam ne li sëñ li sëñ li li l'islam jaral sëñ Tuubaa jaral na la ko sëñ Bamba du seen mm-hmm. allah bi muy bi muy dem bi waxtu tàkkusaanam di jot ñun ñii nga xam ne ñoo ànd jóge Touba l'islam may nañu buñ amoon juróom-ñaar fukki kilomètre ak rek ñu wàññi sunu julli diine la ko may bari na ñoo xam ne dañ koy jëfandikoo am na ñoo xam ne sax bu leen waxtu fekkee ci oto bi dañ koy leb ba àgg Sëriñ Tuubaa waxtu fekk ko ci bato bi moom yaar am na amut place bu mu jullee xamut fu penku féete kooku am na ngànt mu ne bëgg bakkan su ma teexaay ma faat waxtu yàlla wi su ma jàkkaarloog yàlla lan laa koy wax yàlla bind géej gii muy mbindaafoon comme man ayaa bahru laa tusallit la ko Sëriñ Tuubaa waxoon sëñ Tuubaa amul kum daan waxal kum dul waxal boo dee mbindaa fonte jaamu yàlla rek dana wax ak yow mi ngi gis du du géej yi dal ci ci ngabam daf ko ne yow géej dalal yàlla la bind ab jàng comme yaa ngi bàkku de négal ba romb siraat tabbi àjjana soo ko bàkk géej gën a teg yëngootu bi waxtu wi jotee Sëriñ Tuubaa xam ne yàllaa ko bind bind géej gi bind tubaab bi moom seen i bakkan su ko neexee far géej gi su ko neexee rey tubaab bi su ko neexee moom it suñu borom rey ko tudd ko mënal dara mu ne man naa jaamu ci yàlla fu bakkan bi dem baax na ndax bu ma ko defut damay weddi sama bopp te bëgguma àdduna ma weddi sama bopp man maa waxooloon ne xarajtu yow ma sabti saamina asar li xidmati lmuxtaari fii sahri safar ginnaaw maa waxoon ne génn naa ci bisu gaaw bi di fukki fan ak juróom-ñetti safar ngir liggéeyal Moustapha lu ma def lu dul liggéeyal Moustapha rek dama koy bàyyi foofu nag ku fi masaa toll te doo sëñ Touba sa bakkan di bëgg a wadd diine yi bëgg a wadd wàcc nga diine aw sa bakkan am ñoo xam ne nag yàlla day aw diine bàyyi ñu jël seen bakkan sëriñ Touba nag nee na bi diine yi bëgg a wadd sama bakkan di bëgg a wadd damaa bàyyi sama bakkan awal yàlla diine mu aw sama bakkan aw diine moo tax jàkkay jàkkay ndox fu ne mën nañ koo tabax ci àdduna bi waaye jàkkay ndox kenn du ko wax sëñ Tuubaa rek ko julli ba yàlla wàccee julli ci Moustapha ba nëgë ni ku ci ndox ku dul sëñ te loolu dama ci joxe firnde Aliou Ndiaye Mbàkke la dëkk ay dara Ndiaye mee xam na ko mi di Mbàkke faatoogut sëriñ Abdoul Ahad da ko woo 1966 sëñ Fallou yónni ko Côte d'Ivoire ñu dem Côte d'Ivoire dëpp sëñ laat na ko damay jaar ci ndox mi ñu ànd dugg ci bato bi moom ma ko nettali ci làmmiñam nee na bi ñu jógee Guinée jëm si Sénégal sëñ Abdoul Ahad daa mel ne diggante boobu ay yamba koy matt léeg-léeg mu ñëw yërëndu ndox mi del siwaat waat toog na ma Aliou Ndiaye laajal ma ba xam tubaab yi am nañ liminaat bu weex wala déet nee na ma dem jëndal bu weex del si bu toogaatee lu mat waxtu day ñëw yër ndox mi del siwaat na ma Aliou Ndiaye dama wutoon liminaat bu neex bu weex nee na ba mu yàgg mu yër ndox mi dama Aliou Ndiaye daw si bi ma néew mu ne ma fii la sëñ Tuubaa julli woon bi ma ko xoolee ku tubal bu la